c'est la référence. Euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñi safoo di ànd ak Alfayda FM euh, kaddu gi di bàyyeekoo ci immeuble imam Assane Cissé fii ci Medina Baye 90 euh, point 1 ci Kaolack dal leen ak jàmm ma jukkil leen li gën a fës ci boppu xibaar yi ndaje Cheikh Ibra ak Cheikh Ahmadou Bamba tomeeg nag ñaar fukki fan ci weeru koor ren ji nag dinañ ko màggal ëllëg dimanche fanweeri fan ak benn ci weeru mars màggal bi nag dinañu ko amalee fii ci. ci Kaolack ana nan mooy tëralaayu màggal boobule daañu ci ñëw ci biir xibaar yi. accident yu bari yi ci biir euh, réew mi ana lan moo ko waral ndax nag joxe permet euh, ci buum wutu moo ko waral ñuy sàkku nag ci ki nga xam ne moo di njiitum réew mu yees bi ngir mu indi ci ay saafara daañu ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne euh, bàyyi mbay Niass la Kaolack waa di président doomu daara patriote Pastef wax nag ni yen bi nga xamante ne bii moom nañu yenn jamono ji mu di yenn bi njiitum réew duñu ko wàcc benn yoon te itamit nag li leen warloo ak askanu réewum Sénégal daañu ko def weeru koor gi yëpp nag xadiisu alxuraan yi di jibee ci dëkk bu sell bii di Medina Baye ngir nag mun a delloowaat jaamu yàlla ci yàlla waaye tamit nag delloo leen ngir ñu bàyyi seen xel ci seenu koor ngir tamit nag mu mun a sell dañu ci ànd ak Alioune Badara Diop. liggéeykat yi nag faytee fii ci kaw Kaolack nangaan tàngoor bi di leen sonal mason yi nag seen liggéey métti lool teewul ñu bàyyi dañ cay jàpp ba mu dëgër ngir am lu ñu yóbbul seen njaboot nuwaa bi yaay dinañu ci dikkal. bu ñu ca noppee daañu ca toftal xibaaru biti réew ak Alioune Badara Diop euh, tàggat yaram ak Serigne Moussa Kane kooru gay ak Baara Diop ndar keppale ko lii ci yéen kaay yeeg Seydina Omar Cissé mbokk yi lii ñoo fi nar a ruusee ci ay xibaar ngeen taaxilu tuuti ma dugg ak yéen ci faram-fàcce bi euh, gannaaw bàkk bi lay doon. xibaar bàkk ba jib na Alfayda FM kàddu gi di bàyyeekoo ci Medina Baye eh, ngeen koy teewloo nag ci diwaan yu wuute ci Kaolack nangaan eh, tey nag di samedi fanweeri fan ci weeru mars atum ñaari junne ak ñaar ñeent njàppalu ko du sekk keneme la ñuy séen ca machine bi na ma ko junjee woon ca bopp ba noonu laay duggee ci yaatal week faram fàcce bi accident yu bari yi ci biir réew mi wàññeekuwul benn yoon eh, saa yu ñu xëyee rek askan wi di gis ne ne accident yaa ngi gën a yokk ana moo ko waral nag joxe permis bi ñu jox permis ñenn ci ñi nga xamante ne bi dañuy wooye seen bopp ay chauffeur te it tamit nag seen dawal mokkut moo ko waral wala it tamit nag tali yu bon yi ñu nemmeeku ci biir réew mi moo ko waral ki nga xam ne nag moo di président bu bees bi di Bassirou Diomaye fay moom nañu yaakaar nag ngir mu indi ci saafara ngir àddu ci mbir moomu lee ndax daal bakkanu doomu aadama yi dañ ciy faral di rot ñenn ñi di ci faral di ci am jafe-jafe ñu teewlu ci Cheikh Tidiane Diagne at mu jot bu ñu ko xaymaa rek loxo darab gémmeñ du yóbbaale tipp xamante ne ñu ngi ñàkk seen bakkan wala ñu am ay gaañu gaañu ci accident yi fii ci réewum Sénégal mu ngi woy di yokk bu ñu sukkandekoo ci ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Tidiane Sarr moo jiite association de cavaliers de la sécurité routière bu réewum Sénégal. tali bi li muy woon na bëri na jàpp leen ne mbokk yi at mu ne juróom benn téeméeri nit ñu wàccee ci kaw tali bi ñetti milliards ak juróom fukk état baa ngi koy ñàkk te ay jafe-jafe la ñuy wax ne jafe-jafe accident yi fii ci Sénégal ñëpp ñu ngi koy waxtaanee alors que problème boo xam ne la tànk rek la wuñu ko dëgg-dëgg yàlla jàmm am nag dafay tënku ci ñu tënku ñun ñëpp ci li nga xam ne moom la ko daaw santaane. lu ñu mel nag li ko indi def na ci ab taxaw seetlu moom mi nga xamante ne kenn la ci ñiy ñaax askan wi ba accident yi dal di wàññeeku loolee nag dara weesuwu ci jafe-jafe bi nga xamante ne am na jëm ci wàllug auto école yi lii moo tax nag mu lancé appel Bassirou Diomaye fay njiitum réew mu yees mu Sénégal mu organiser waat secteur boobee. ñu wax ne auto école Sénégal yëpp ñu ne war a boo leen ci li nga xam ne moo nekk benn kuréel goo xam ne a mbir mi ñuy wax tamit ne li nga xam moo nekk njàngale code de la route dañ ko war a ci biir école yi Sénégal yi école digg doomu yi muy école euh, élémentaire yi ak moyen secondaire yi leneen lu ñu mën a takk muy def ay njeexital ci mbir mi ni mel bokk na ki tamit tali yi nga xamante ne dafa yàqu nguur gi fi jóge nag doon na ci naa ma bu ñu sukkandekoo ci ay kàddu yi Cheikh Tidiane Sarr waaye yeneen i pexe mënees na koy am lii la yóbbante nguur gi fi fas yéenee nekk nguur gi dem nii tabaxoon na toll ci dix mille kilomètres jàpp ne mbokki na lépp lépp ràpp na lépp ne na foo

ne dana xam jafe-jafe yi nga xam ne jéngu ci wàllu tali bi moom la ñuy dund. accident jamono ji nag bi mu bëree lool ministre bi fi nekkoon di Mansour fay dafa jëloon ay dogal la ngir arrêté lépp lu jëm ci wàllug dawalum guddi gi jamono ji tembe tembe nag chauffeur yi li ñuy xaar moo di ñu teggi dogal boobee ba noppi indi yeneen i mesure seen digganteeg nguur gi le bu ñu sukkandekoo ci ki ngi doon seexal waxtaan wi le. plan bi ñuy tabaxee tali yi nag jar na ñu koy saytu bu baax a baax ndax nag yenn ci gox goxaani seen suuf ndiroowul te itam nag dafay faral di indi jafe-jafe lu ci mel ni Kaolack suuf si dafa xorom te itam nag boo ci tabaxee tali yooyu lee mun na di toj te du yàgg du am sax at mun na di tàmbali eh, di indi li nga xamante ne moo di jafe-jafe ci dawalu ba oto yi ndax itamit nag accident yu bari itam dañuy gis ne ne tabaxub tali ak itamit nag toj yi fi nekk ci tali daal moo koy daal di waral eh, ki nga xam ne nag moo di Cheikh Tidiane Sarr mi président association les cavaliers eh, bu sécurité routière moo ko daal di xamle ci micro Cheikh Tidiane Diagne ñuy wax ne tali yi tamit gannaaw ko ñu koy tabax nañ ci ne kon ci réalité dëkk yi dëkk bu mel ni par exemple Kaolack xorom ak ban sonal na ko bu ñu tabax tali nañ bàyyi xel ci ne nu ñuy def mooy collectivités territoriales yi dimbale état bi ci entretien wu route secondaire yi ndax tamit bu ñu tabaxee tali yi muñ bëgg jamono te amul entretien bu mucc ayib amaana bu dem fan day daal di xaw bu baax baax loolu tamit nekk na mbir yoo xam ne maire yi ci secteur Jakarta Jakarta li muy rey ci nit bari trop li ko waral mooy que ne dañ leen a boolewul ci waxtaan bi te jot nañ waxtaan ak ñoom waaye tamit kenn bëggut dugg ci oto yu màggat yi nga xam ne moo fi nekkoon ci loolu bu ñu ne renouvellement parc automobile bi ñu ne waaw waaye jël ko jox nit ñoo xam ne dañoo am doole bàyyi ñi nga xam ne nekk baadoolo yi di indi également jafe-jafe kon war gaynde yi war nañ ñoo mën a boole waxtaan ak ñoom organiser leen régulariser leen kenn ku ne mën a tënku ci li nga xam ne moom mooy organisation nañu daal président bu bi di Diomaye Diakhar Faye su ci taxawee tànk xar tànk tubayam jàpp nañu saafara ak jàmm daan ak am ci kaw tali bi te jàmm jooju leen du kaaraange te kaaraange day indi yokkute ak émergence te loolu jàpp nañ ne war na mën a nekk te si ne nañ ci boole képp koo yaay yëngu tari bi dañuy def waxtaan boo xam ne par par loola kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax loolu mbokk na ci li nga xam ne moo gën a sooxeel secteur transport fii ci biir Sénégal. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM mooy la référence yaakaar judduwaat na nag ci ndaw ñi gannaaw bi nga xamante ne bii eh, it tamit nag fal nañ njiitum réew mu yees mu di président Bassirou Diomaye fay yàlla nag bu yaakaar boobu lee tas te it tamit nag yéen bi eh, dinañ ci tàmbali nag tabax réewum Sénégal ndax réewum Sénégal doon na réew moo xam ne réew mu ñu ràññee la it tamit nag ci Afrique te Afrique da koo jox eh, bopp bu baax a baax di kàddu nag Baye Mbaye Niass la Kaolack waa mi président doomu Daara Patriote Pastef ci micro Cheikh Tidiane waaye li am fan lañ jëm yaakaar naa ne loolu moo ëpp solo ndax li tax ñi dénk ñu ak nit ñi dénkee loolu ku ko xool rek di nga xam ne défi bu rëy rëy moo ñuy xaar waaye nag yàlla mi dara tawut bu ñu jàppalee rek ànd ak sénégalais yi xam ne tabax réew mi yokk tabax réew mi wareef la ci képp kuy doomu Sénégal booba tabax bi dina mën a yomb waaye yaakaar dafa judduwaat ci lu bëree yaakaar dafa juddu ci ndaw ñi juddu ci mag ñi waaye juddu ba ci sax sous-région bi ndax Sénégal yàlla moo ko def mu nekk dëkk boo xam ne dafa mel ni seetu ñu koy xool ci àddina dafa bëri rawatina Afrique ndax dañ doom joxe exemple ci Sénégal ci démocratie mais bi fi ñu jëm nii man sama lu may yaakaar mooy Sénégal dina joxe modèle ci yokkute ci développement ndax euh, suñu projet boo ko déggee toujours li ci gën a am solo mooy fexe yokku Sénégalais bi yokku Sénégal moo tax nga dégg toujours ñuy wax ne suñu projet mooy fexe ba li ñëpp bokk rek ñëpp jot ci. xaar nag ay yokkute ak ay taxawaay diwaanu Saalum yëpp di ko xaar ci ay doomu Saalum di xaar tamit doomu Saalum yooyu bañ a def li fi doomu Saalum yi daan def amul nag diil amul njuuj njaaj lépp nag dañ koy tekk ci yoon te fas yéene itamit tamit nag liggéey te itam nag gis nañ ne ki nga xam ne moo di président Bassirou Diomaye Faye Mbaye yitteel na ko lool ndax bokk na eh, ci projet yi nga xamante ne bii askanu réewum Sénégal gis nañ ne am na ko te itam nag dina ci taxaw bu baax a baax te nag candidat bi faytee fii ci diwaan bu Kaolack te ñuy wax ne amu fi ndam damaa yaakaar ne daal duggam ca élection yooyu le moo wérloon di woyulu nag kàddu Baye mbay ñas la Kaolack waa ñu teewlu ko ci adduwaayum àdduwaayum Cheikh Tidiane yi lépp lu ñu def xool ci suñu borom ba pare xool ci askan bi du ñu tëj diil du ñu def euh, loo xam ne dañ koy def ba pare euh, teg ko ci kaw askan bi déedéet loolu nag dafa dafa méngoo ak li nga xam ne moom la ñu oote moo tax ñi nga xam ne xamul dañuy wax naan ñun mënuñoo politique waaye képp ku musa sax def politique boo ñëwee Pastef am na beneen façon seen ligne liñ bi ñu bëgg a moom ngay jéem a adopté yaakaar bi ñu am ci gouvernement bi yaakaar bu réeree la comme ni Sénégal yëpp yaakaar waaye nag ay yaakaaru taf-taf lañu soxla ci lépp lu jëm ci wàllu Saalum ku wax Saalum wax mbay te président bi dégg ngeen ko mu ne moom mbay moom moo nekk kër de projet kon nag base agriculture cër bu lëwa lëwa la am ci projet bañ ngeen ko sax ba jot nañoo sax annoncé daanaka dix pour cent ci budget Sénégal def ko ci mbay mi te duñ am ci loolu boole ko accompagner ko ak yeneen fonds waaye fexe tamit ba baykat bi moom boppam am samaasam waaye suufam DER sax moom ko ba nga xam ne moom mën naa jug tey rek tam am financement outil financement yi mu ñëw def liggéeyam. waaw beneen laaj bi nag pendant lu jëm ci candidat yi nekkoon ci élection yi rawatina candidat bu dëkk Kaolack at ci ginnaaw rek mu am ci ndam lay ndërmeelu li sama xalaat rek mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne wor baaxut ba pare méngale ko ne workat moom toujours mën nañ koo war nuñ ko mën a tuddee rek mooy benn système yëf yi ba mu gën a leer yokku dina jógee fañ ko foogeewut ndax euh, am na ay analyse yoo xam ne buñ ko defoon wala ay gëstu di nga gis ne seen lépp rek ay système la ay branlo ak ay lobby ba bokk ci ay élection waaye duur sax luñ gëmoon wala loo xam ne sax dañoo matal yenn jumtukaay yi. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM kaddu gi di bàyyeekoo ci Medina bàyyi ñu dem ca beneen xibaar wax ci wàllum njàng ak njàngale euh, ca diwaan bu Vélingara nag résultat yu baax moo fay tukkee jamono jile ci ñi nga xamante ne ñoo di ndongo daara yi li ko waral nag moo di ONG yi nga xam ne dañoo jàppoo euh, taxaw ngir jàppale jàng bi waaye jàppale wuñ ko rek ngir ci biir école yi ndax gis nañ ne nag ñi nga xamante ne bii ñoo di ndongo yooyu la du ci biir école yi rek nag euh, la ñuy mën a jàngee lépp ba xam lépp waaye nag suñu eggee seen i biir kër yi tamit waroon na ngir tamit ñu am jàppale yoo xamante ne bii dinañ mën a wéyal seen jàng ndax gis nañ ne jàngu biir kër sax mooy gën a taxaw te itam nag mooy gën a jàppale ndongo daara bi ki nga xam ne nag moo di inspecteur Mamadou Diédhiou moo ñu ko xamale ci àddukaayu Babacar Diouf. dañ fi daje woon doon gëstu ci mbirum liggéey bi nga xam ne partenaire bi di GMP moo ngi koy def ak IEF bu Vélingara ci benn stratégie bi ñu wax UVCP maanaam xool ba ñu suqalee suñu école te jaaree ko suñu culture mais dafa am ñaari pàcc yoo xam ne moom lañ doon gëstu tey parce que bi école tëjee bi ñu demee ba nga xam xam ne xale yi dematuñu école dañoo defoon ay activités yi ñuy wax activité de vacances muy activité culturelle activité maanaam bu école tëjee li seetlu muy xale yu bëri dañ leen di bàyyi ñu nekk su leen neex léegi nag ñun ak partenaire bi GMP ñu bu tëj bi woo nañ xale yi leen def loo ay liggéey yoo xam ne dafa aajo si seen culture wala si seen cosaan wala yi nga xam ne dafa aajo si seen jàng loolu baax na si xale yi loolu lañ nga xam ne jox nañ ko de si biir école bi maanaam lu communauté bi def si biir école bi dimbale ko xale yi si li jot a wax am na si ay dëkk yoo xam ne communauté bi ñoo jënd fourniture pour yëpp am na si yoo xam ne communauté bi ñoom ñooy gérer li ñuy wax suivi maanaam jàngum xale yi si kër gi dañ ko ba dañoo defar ay tableau mobile pour encadrer élèves yi bu ñu wàccee école si tableau mobile yooyu la ñuy def ñu jàngal ndax li ñuy jàng ñu gën ko xam muy ay taxawaay yoo xam ne mbootaay bi mbooloo mi ñoo ngi koy taxaw di ko jàppale école bi muy lu baax a baax a baax te école bi loolu rek la soxla enseignant bi loolu la soxla bu xale bi jàngee si école ba pare bu demee sa kër ga moom nga koy saytu parce que si biir ay la fay jël rek mais liggéey bi gën a am solo ci mbirum jàng mooy li muy def si biir kër ga te fi ñu nii communauté bi loolu lañ comprendre moo tax dañuy jël ay initiative maanaam di def seen def lu mel ni jënd ay fourniture jënd ay matériel di wut ñoo xam ne dañuy jàngal xale si biir kër ga ba tax na fi ñu toll nii wax dëgg zone bi nga xam ne initiative bi moo ngi fa gis nañ ne résultat yi moo ngi baax di jëm kanam moo tax ñoo ngi sant yàlla vraiment di gërëm partenaire bi di ko dooleel tamit bëgg nañ mu gën ci yàgg parce que nañ ne lu mu fiy gën a yàgg rek muy gën a baax pour école Vélingara muy gën a baax pour desandi ñu dem nag ci wàllum wér gi yaram ah, delloo leen njukkal ñoom ñuy yëngu ci wàllum santé mu di wér gi yaram foofu lee ca diwaan bu Vélingara ana naka nañ leen doon delloo njukkal mooy jox leen ay ndàmpaay ndàmpaay yañ leen doon jox nag ngir ñu mën a jàppandiku ci li nga xamante ne bii ah, ca nañuy yëngu ndax gis nañ ne ñooñ ñooñu lee dañ leen di faral di leen yóbbu ci gox yeeg goxaat yi te itam du ñu gis benn ndimbal ah, bu yegg si si ñoom ndax dañ fay faral di fa sonn ndax njaboot da leen di sori lool ki nga xam ne nag moo di madame Daouda adjoint préfet micro Babacar Diouf. cérémonie donc euh, de remise de récompense des acteurs de la santé parce que docteur Sané dañu commencé di organiser chaque année pour jox ay euh, ndàmpaay ay agents de santé di leen distinguer seen wàllu liggéey ñu di leen jox ay neexal neexal yooyu nga xam ne dañ leen koy jox dafa nekk loo xam ne acte bu rafet la parce que ça veut dire que c'est une équipe mais tey bu ñu récompense ñu ñu récompense ndoo ñëpp donc am na ñoo xam ne dañuy distinguer seen liggéey te ku ne xam ne agent de jafe dañu nekk ay dëkk yoo xam ne dafay xaw a enclavé dafay nekk ay yoo xam ne dafa xaw a jafe pour nga liggéey foofu culturellement socialement mais ñoom toujours dañuy nekk di xeex ak en tout cas seen bopp pour mën a génn ci loo boobu donc tey bu ñu demee ba mun ñëw di organiser di récompenser ay sage femme ay ICP ay matrone ay relais donc ça veut loolu moom bàyyiwul kenn en rade mënoon na ne tamit ICP mais dafa xam ne la santé aussi ñoom ñëpp ñoo ci bokk donc loolu dañ koy rafetlu en tant que autorité leen di wax nañ ko yokk ça veut dire que tooguñu rek ñu xëy desane leen dañ leen di tànn bu leen di tànn ñoom kese du ñoo fi nekk ay ICP dans le Nouvelle-Nigeria y a beaucoup de CP ci CP kenn di ko jox tey di ko neexal tey ay yeneen moroomam ñi ngi fi il s'est distingué dafa am lu mu def ba tax ñu jox ko loolu mu doon def ba am loolu bu mu ko bàyyi na ci continuer wala sax mu def plus loolu loolu lañ koy conseillé mais aussi di wax ñeneen ñi nga xam ne si ñi ngi nekk comme moom ñu xool ci li mu def ba am ko ñoom aussi ñu góorgóorlu ci lu ñu nekk ba ëllëg ñoom tey ñu taxaw place ñu jox leen loolu muy matron bi muy sage femme bi muy delloo njukkal Moussa Sumbulu nag mi nga xam ne dugal na loxoom woon ci lu bari eh, ci foofu foofulee ca diwaan bu Vélingara ndax nekkoon na nag ku ñu ràññee bu baax a baax mu doon taxaw nag di xeex wàllum nag wér-gu-yaram ngir itamit nag wér-gu-yaram gën a mën a suqaliku foofulee ca diwaan ba waaye itam doon xeex nag accident yu bari yi nga xamante ne bii eh, ñu ngi koy nemmeeku ci biir réew mi ba sax ci accident yooyu le eh, fa la jaaree ñàkk bakkanam moom mi nga xamante ne moo di dem si yàlla Moussa Sumbulu ñu war koo nag delloo njukkal war koy itam nag fële ca diwaan bu Vélingara maam Cheikh Meng di professeur lycée bu Vélingara àdduna ci ci micro a Diouf. ñuy wax ci Moussa Soumoundou tey lu rafet la ñuy wax ci Moussa day permettre nit ñi xamul woon Moussa xamul woon fi mu teg tànkam ak li muy yéene Vélingara ak région bi ak Sénégal dinañ ko xam Moussa jàngat yu bëri lañ mën a am ci moom Moussa boo jëlee Moussa ci wàllu vie de société a commencé ci famille am Moussa modèle la woon foofu yaatuwaayam kenn natable wu ko Moussa nga jël ko ci commune bi amul benn xaar ak nit Moussa mi ngi ci sport bi Moussa mi ngi ci culture bi Moussa mi ngi ci société Moussa mi ngi ci lépp lépp loo mi ngi ci environnement bi mi ngi ci cas accident yi bëggul dara lu métti nit bëggul sénégalais ñàkk bakkanam ci ay accident bëggul sénégalais ñàkk bakkanam ci ay carence de soins ci ñàkk paj moo tax Moussa xeexam yëpp Vélingara la xeexam yëpp hôpital bi la xeexam yëpp cas d' accident yi la moo tax ma wax ne Moussa mérité nañ ñu defal ko un symbole tuddee ko ay rue tuddee ko tamit la gare routière la gare routière de Vélingara dafa war am turu Moussa Soumoun dans la mesure où c' est vrai que mi ngi doon yëngu ci ay xeex yu bëri ci wàllu santé ak accident bi nga xamante moom métier chauffeur la ci loolu la ko yàlla jëlee donc gare routière bi waruñ ko mën a jox turu keneen ku dul Moussa cest à que Vélingara il faut ñu aussi ñu tàmm benn affaire ku ci nekk li nga mérité rek ñu jox la ko te yàlla tax ku mérité am turu stade ñu jox ñu jox la ko ça mérité na leneen leneen ba pare jàngat bi ci xale yi war a def mooy jeunesse mooy que ne fi mu tegoon tànkam nañ ko continuer foofu dans parce que dafa jàpp ne li muy def jaamu yàlla la xeexal sa askan ci jaamu yàlla la donc Moussa julit pire la woon ba pare ku respecté woon diine ñeneen ñi la moo chrétien ñëpp gis nañ seen rapport ak ñoom bi mu defee place de l'Obélisque activité boobu l'abbé Benjamin dafa dem loolu mooy wone la dimension multireligieuse de Moussa. yéen ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. Euh, kàddu gi di bàyyeekoo ci studio Alioune Momar Lo ci immeuble imam Assane Cissé ñu dem ca beneen xibaar di wax nag ci diggante Cheikh Ibra ak Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk nag diggante bu yàgg lool ni ki suba nag ci dimanche gi nañu nar a màggal nag ndaje Cheikh Ibra ak Cheikh Ahmadou Bamba ana lan mooy taarixu nag ndaje boobule Mor Talla Wade mi teewal nag xalif général euh, bu faal yi fii ci kaw Kaolack indi na ci ay leeral ci micro Cheikh Tidiane Diagne. taarixu Serigne Touba ak Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ibrahima Fall taarix bi moom moo di Cheikh Ibra digganteem ak sëriñ bi jiitu na lu nekk ak lu bëree bëri bi nga xamee ne yàlla dogal na wër ko nekk ci moom te mu jotoon digal ndax suñu borom moo wax ne mas nay xibaar ak jébloom bay wax ne yàlla mii ko moom moo ko ne bàmba moo la moom loolu nag moo waraloon wër gi muy bàmba mi ko moom bi mu koy wër di ko wër ba yàlla dogal mu fekk ko dëkk bu ñuy wax Mbàkke Kajoor waaye lu jiitu loon nag jaar nañ ci tay baxay kër sëñ Bàmba Sylla fa lañ jógee nag sëñ Adama Gueye ànd ak moom ba ci jëmmi sëriñ Tuubaa ja bañ dajee it bind na ma ak yonent yàlla moom it def naa la ngay sama wasila loo ma digal dinaa ko def Cheikh Ibrahima daan na doom koo xam dina yaa ngi xalaat lu ñu tere rek sa xel nga ca tere ya ku jëfe ndigal yi rek bàyyi tere yi loolee ma nga amoon ñaar fukki fan ci weeru koor tombeeg na ci taarixu di màggal bés boobulee fan ak benn ci weeru mars nañ ko nar a màggal mu nar a tombeeg nag amal nag ay jàngale arxuraan yu ama am solo waaye tamit nag taaral fa diine sargal fa it tamit nag mag ñu baax ñi ana nag bés ba lan moo waral nag ñu koy defee fii nii ci Kaolack ñu teeru ci Mor Talla Wade waaw loolu bi nga xamee ne yàlla dogal na loolu jàll nag ku ñu wax sëñ Cheikh Fall Khady Gueye di doomi sëñ Mourou Moussa Fall mi njëkk a nekk xalifa Cheikh Ibra moo doon gëstu bis boobu bi mu koy gëstu ba am ko yàlla dogal nag mu nekkoon da koy defal ak màggal waaye nag comme ñëpp bokk la at mu jot da koy def ci biir région bu déwénee mu def ko ca bee région yàlla dogal mu xalaat bi njëkk Kaolack defee Kaolack nag comme moom dafa bokk ci ñi sëñ Mor Talla yor bi mu ko defee Kaolack yàlla dogal nag xalaatoot ngir tuxal ko ndax waa dëkk bi mag ñi fi ne woon ñoom ñëpp dañ cee nga daaw nag bëgg mu bàyyi leen fi bis bi muy bis bi mu bàyyi ko fii Kaolack nag nga xam ne at mu jot moom moo ko doon def ba ni mu wàcce ab liggéey bàyyi fi doomam ju tedd ji Serigne Fallou Fall Cheikh muy taxawee bis boobu bis bi nag li sabab bi yëpp mooy jàng Alxuraan jàng xasaay tudd yàlla santante gërëmante berndelante ak li nga xam dina mooy baaxu yoon wi nag muy teral mag ñi wormaal ndaw ñi te dimbali nit na ci li nga xam dina mooy cosaan bi. Euh, ca cosaan boobu sax loolu moo waral nag organisation wu bés bi ana nan la màggal ga nar a tëddee ak itamit nag ci bés bi ci suba ba ci ngoon yan ak yan mbir moo fa nar a xew euh, daañu ci ànd nag ak ki nga xam ne moo di Alaaji Fàllu ba nekk nag ki nga xam ne moo di membre comité organisation bi euh, ñu daal di koy teelu ci micro Cheikh Tidiane Diagne. bisub bi ñu ngi ko fas yéene def fan ko daan defee muy sanc sëñ Mor Talla Fall nga xam ne foofee la ko sëñ bi tàmbalee mi ngi dajeeg nag dimanche ji di 31 ci weer wi di ñaar fukki fan ci weeru koor ñu koy màggalee fii ci ndigalal Serigne Fallilou Fall Cheikh mi nga xamante ne ni moom mooy xalifab Serigne Cheikh Fall Khady Gueye moom moom yi ànd ko nag ak ay rakkam ci jëwrinu Serigne Moustapha Fall jëwrin moom Serigne Cheikh Fall Khady ànd ko it ak mag ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo di bàyyi Modou Diallo ñoom jëwrin yi nga xam ne ni ñoom ñoom ñoo fi des ñu nekk ak ñoom ànd ak papa génn ak mag ñooñu di woo it euh, ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk organisation bi niñ ko fas yéenee defee mooy jàng jàng xasaayit yi def ay bernde ak salaatu ala nabi yoo xamante ni lim bi am na tàmbali mais amul yemukaay lépp nag daf ko addi Serigne Touba def ko it ci weeru koor weeru koor nag dafa am lu ci xew weeru koor ci lañ gisee ñoom weeru weeru koor ci la alxuraan wàcc weeru koor ak li nga xamante ne nii fi ko Serigne Touba teg ba mu ne weer bu man kat damay am gan gan googi nga xam ne moom la wax ne moom mooy ñëw te daf ko wax rek dugg waaye ka xam gan gi mooy kan kooku mooy maam Cheikh Ibrahima Fall ca guddi googu ca la daal di tàmbali soqalu ay dugub wallu ko ndawal def ca mu yóbbul ko sëriñ bi ne ko ndogu yaangoo waaw ñoo ngi woo góor jigéen mag ndaw di woo képp koo xam ne nii jullit nga rawatina nag suñu bokk yi nga xam ne dañoo fekk sëriñ diggante sëriñ Basiiru ak seexal islaam ñuy dox diggante bi ba mu rafet waaye nag am na ab lu jiitu loolu mooy appel ba nga xam ne nii moom moo amoon fii ci Nioro mag ñëpp daje fa ngir mën a dëggal lislaam taxawal ko loolu nag tey jii ci lañ sukkandiku woote boobu moo barkeel moo màgg sampub lislaam ba ca ñooro ñu ànd koog Maam Mor Anta Sali Maam Abdoulaye Niass ñoom mag ñooñu ba Serigne Touba jógee ca daara ji ñëw fekk si leen fa la soxna jaara ne looloy samp bu wér bi ci la ñuy woo ñëpp nag bàyyiwuñu kenn nañu xam ne lislaam daal moo am ndam ci weeru koor yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 juróom-ñeent fukk yu toftal benn ñu dem ca beneen a xibaar wax nag ñi nga xamante ne ji ñoo di mason yi faytee fii ci Kaolack nangaan ñaq di dundee la ñu xam dóor waar liggéey rek moo leen ñor bëgg nag lu ñu yóbbul seen i ay njaboot bañ yi tamit nag toog am lu ñu dugal seen poos moo tax dañuy xëy suba ba ngoon nag di dóor waar di liggéey donte nag naaj bi day tàng ak itam nag weeru koor gi jafe-jafe yi nga xam ne nag dañ ko cay dund nuwaa bi yaay la ciy àndal ay fajar la jóg dem di ut ay liggéey ngir sutural seen bopp ñooñu maçon ñuy boole koor ak tàngoor fii ci Kaolack Abdoulaye Faye kenn la si ouvrier maçon ñooñu. weeru koor bi teel xëy rek teel a wàcc. noonu rek koy defee parce que fi mu toll nii boo ko deful doo mën woor parce que maam naaj bi day tàng mais boo teelee xëy après nga mën a teel wàcc loolu dañuy calcul maanaam liggéey bi comme ça boo waroon a wàcc man ay 14 heures 3 heures ngay wàcc wala 13 heures. sorowul ci Abdoulaye sa jafe-jafe yoo xam ne ñooñu maçon ouvrier ñu ngi koy am mu dem ci seen wàllu liggéey bi. ñun mënee bari ñun mënee am journée dix mille maçon yi am journée douze mille cinq cent loolu baax na ndax liggéeyu xam na xam nga koor ak am na ñoo xam ne seen lekk sax doyut étranger nga koor moom fi nga dëkk rek la neexee mais bu dee ngay lekk ci ngay naan ci ngay paas ci ngay def lépp ci journée kese loolu moom da ngay taqale rek surtout kaw la xay ni mu tàngee bu doon sax foo am dafa seet yenn saa yi nga am liggéey yoo xam ni da ngay dóor lii dóori la waaye lii benn journée rek nga mën a doxalee bu baaxee bu baaxul nga dem subaati nga ñëwaat. mënoo ko boole ak yeneen liggéey. déedéet mënul ànd ak leen. ñii maçon ouvrier yi di boole koor ak liggéey ci jamono tàngoor yi nekki nii ñu wax nañ des fois dañuy am jafe-jafe pour am lu ñu war a yóbbu seen kër. ñu jaajëfal ko moom nuwaa Noa Biaye fii ci Medina Baye Tisbaar kàddu gu sell jipp bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Mahi Seydi alin Cissé euh, ci biir weeru koor gi yëpp naka xadis yi dafay fàttali askan wi ak jullit naka nañuy def daal ba seen ba mun a sell waaye itam nag delloo si waat seen xel ci yàlla ñu ànd ci ak Alioune Badara Diop. billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani arrahim baabun xaqul jismi fi sawmi xaddathana bnu muqaatilin axbarana abdullahi axbarana alawzaaciyu qaala xaddathani yaxya bnu abi kathirin qaala xaddathani abu salamata bnu abdirahmani ci kàddu yi sell ya jamono ji nga xamante ni ñu ngi fii ci joon bu Medina Baye tisbaar jot ba toftal ay simili lii la ñuy wooye qaala xaddasana xadis bi nga xamante ci doom Médina Baye Cheikh Mouhamadoul Mahi Seydi Aline Cissé moo koy amal saa suñu jullee tisbaar ba pare mu ne jëlee nañ ci Abdullah ibn Amr ibn Aas radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko yow Abdullahi ndax solowuma maanaa solo nañ ma naka yow da ngay oor bëccëg di dundal guddi ñu mën a jàpp nii lii bokk na ci fàttali jullit bi ci doxalin bi nga xamante ni moom la doxali ci jamonoy weeru koor gi wante tamit fàttali baax a baax sart yi nga xamante ni islaam teg na ko woowu xadis boo ko déggee mooy waxtaan rek waaw léegi waxtaan woowu mooy fàttali rek ndaxte ay jullit moom lu mu xam-xam-xam bu ngeen dajee da ngeen a war a fàttaliante fa sakkri in nafaati zikra yàlla nee na dee leen fàttali ndax ndax fàttali dafay jëriñ moo tax ñii buñ julee ba noppi moo xam tisbaar la la ñuy fàttali wala ñu def ay tafsiru quran ñële buñ julee gee ba noppi la ñuy fàttali mbaa ñu def leneen li ëpp buñ julee gee ci la ñuy fàttali ndaxte boo xoolee julli timis dafay fekk yaa ngi or ba ngoon yaa ngi dem ci kër gi bu dee julli tisbaar boo jullee ba noppi doo am looy def nga toog fa di déglu ay tafsir wala ay hadis moo gën mbooloo mu takku nag ñoo fay teew ngir teewlu kàddu yi nga xamante nii kilifa gile yi di Cheikh Mamadou Mahi Seydi Aline Cissé daf ko yëkkati ca baat bu neex ba dañ wax ne bu fekkee ne or bañ a dagg dana tax nit ki mu tëleleel ko ay farata boobaa oram googu dafay mujj nekk sax xaram bu fekkee nag daf koy tëleloo def li nga xam ne nii moo gën a xeey boobaa dafay nekk loo xam ne ne luñ sib këru diine di ko faral di def ci ay waxtu wuute te fasandikoo moo xam tisbaar timis wala sax géewee lépp na bokk na ci fàttali waa jullit bi ci tënk yi nga xamante ni tënk nañ ko ko ci doxalinu diine lislaam rawatina nakk ci weeru koor gi allahumma Euh, taarixu élection ci biir réewum Sénégal anakaañ la réewum Sénégal tàmbali élection euh, jàngandoo ci beneen anam ñu ànd ci ak Ndeye Fatou Cissé. 1983. Abdou Diouf mooy élection yi mu njëkk defal boppam ñu fal ko ci pour juróomi at. seen rubrique jàngandoo ci beneen anam tey ci samedi jile fanweeri fan ci weeru mars di àddu ba tey jëmale nag ci wàllum histoire euh, ak taarix ba ca Sénégal am ñu daloon ko ayu bés yële ñu génn ci atum 1978. dëgg la Sénégal 60. 63 ba 78 mu ngi def ay élection mais 78 tax ñu gën ko jàpp mooy élection yi njëkk yoo xam ni candidat yi bëri nañ diggante Senghor ak Ablaye Wade la woon. ponk bu ni mel mi am xët ñu di ci ànd ak nag ak monsieur Assane Niane moom ak yéen ñi nekk kon ci diglu gi ñu leen di wax dal leen ak jàmm. Ablaye Wade ak ñeneen Abdou du la ñu dajal ci élection 1983 juróomi at yooyu waroon a jeex 1988 waaye comme force yi fi nekkoon di xeex ngir démocratie bi gën a yaatu ñu ngi ngi fi am na ga yaatu bu ci am ndax Abdou Diouf bi mu ñëwee nee na képp ku bëgg am parti mën nga koo créer amatul benn problème waaye démocratie du rek créer parti mais liy soxla askan wi liy soxla réew mi liy soxla nit ñi il faudrait que ñu taxaw ci loolu moo indi 1980 opposition bi commencé di bëri doole commencé di bëri doole ba 1988 bi ñu demee ca élection yi du Abdou na am nee nañu moo gañe waaye la jur mooy xeex bi tàmbali reyante bi tàmbali bu ngeen fàttali ko année boobu ñi doon jàng moom année blanche lañ ko tuddee année 1988 école bi ubbiwul benn yoon bi élection yi weesoo ba cal mois de juin ba école tëj école bi donc kenn jàngul année blanche lañ ko mujj def loolu biñ ci jógee donc 1988 faiblesse boobu feeñoon ci état Sénégal moo indi réew yu ñu wër même réew yu ndaw yi nga xam ne amoon nañoo ñoom jàmm commencé am ak ñun ay problème ne ay Gambie même Guinée-Bissau mel ni Mauritanie parce que Mauritanie la ñu gën a tudd parce que suñu diggante ak moom moo gënoon a tàng ñëpp xam nañ ne de guerre diggante Mauritanie ak Sénégal ci ay coowal suuf ci département wu Bakel et am ay force nag yoo xam ne yi bi ñu ko gisee loolu ne a ah, nguur jarul lenn li ndax nguur boo koy wut askan wee tax kon askan wi bu ñu nekkee ci jafe-jafe yenn yi boo jotee nguur gi ci kan nga koy wutal kan nga koy amel kan nga koy téyel kon nag na ñu seet meneen pexe moo xam ne réew mi dina dal ba pare ñu soog a delluwaat ci xeex bi nga xam ne moom lañ doon xeex loolu moo indi 1991 waxtaan indi gouvernement de majorité présidentielle Ablaye Wade ak yeneen i force ànd dugg ci gouvernement parti socialiste Habib Thiam moo ko jiite Wade ñoom sa Seck yooyu yëpp daal di dugg ci gouvernement bi waxtaan woowu aussi moo indi code consensuel bi ñu tuddee Kéba Mbaye code 93 code boobu mo indi ñu yóbbu mandat président bi léegi jëlee ko juróomi at yi mu nekkoon def ko juróom ñaari at juróom-ñaari at yooyu moo indi en nag la ñu yemandig yéen ci seen rubrique euh, jàngandoo ci beneen anam. alhamdulilah. bàyyi ne yal na yàlla jàpp ci suñu loxo ñun ñëpp. xawala ñu ci yoon moom bëgg. xawala ñu ci yoon moom bëgg yaa rabbi. nañu ànd te ngeen góorgóorlu bañ bañ a tàggoo. bàyyi nañu ànd te nañ góorgóorlu ba bañ a tàggoo. buñ tàggoo daal yow dana baax. buñ tàggoo wut. ci lam rek ànd ànd la. waaye ànd du ci lam rek ànd ànd la. ànd mooy lan. te moo di lan. ki jiitu. ki la jiitu. xaw ci yoon wi. xaw ci yoon wi. di dox di dem taxawul. di dox di dem mu wóor la ne taxawul. toppal ci moom rek. toppal ci moom rek nga. bul jàdd bul taxaw. bul jàdd yow it bul taxaw. waaye su xawee ci yoon wi di dem. wante bu xawee ci yoon wi di dem. yow nga jàdd àndu leen. yow nga jàdd àndatu leen. soo demee. su demee. yow nga toog mbaa nga tëdd. yow ngay toog mbaa ngay tëdd. àndu leen. àndatu leen. ànd ànd la rek. ànd daal ànd la rek. nañu ànd te nañu góorgóorlu bañ a tàggoo. nañu ànd te nañu góorgóorlu bañ a tàggoo. dig daje beneen yoon na. incha incha allah. xabaar yi bitim réew. mu ngoog yëglu na boppam xibaaru biti réew yi Alioune Badara Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax a baax soxna Mariama Ba xibaaru bitim réew yi nag des koy door ci réew bu tugg wax ci taskati xibaar bi nga xam ne jamono toll nag caabi da ko féete ginnaaw di wéy ci tuuru Apollinaire moom mel nag doon directeur de publication bu bërëb taskati xibaar bii di La Dépêche nekk foofu ci réew bu tëggu ginnaaw bi nga xamante ne nag ñu ngi ko doon tuumal ci wàllum accusation maanaam yenn xabaar yoo xamante ni ko fësal jëmale ci doxalin réew ma rawatina nag nga xam ne yooyu wàllum kaarange gi li tax na nag ñu tegoon ko waxoon nag ci ay fan ñuy génn ginnaaw ndogal bi nga xam jib na nag waxtu bi ñu toll nag caabi ne nekk foofu ci réew bu Togo yi nag bu Togo xabaar yi bitim réew ñu dem ci réew bu Mali nag wax ci magistrat yi nga xam jamono toll nag ñoom moomu lay nañu li xam moo di cour constitutionnel bi ngi kat euh, jéem a na li moo di dab dakkali transition bi xam moo nekk foofu ci réew bu Mali ginnaaw ci ay diir yoo xamante ni nag nemmeeku nañu nii foofu ci réew bu Mali nag transition moo ko jiite ba tax nag kuréel gi nga xam moo ëmb woy magistrat nekk foofu ci réew bu Mali nag ñu moomulee seen bëgg-bëgg bokk na ci nag ñu jéem a dakkal li nga xamante transition bi ba mën a jox nguur gi nag woy civil yi lée constitution bi foofu ca bu Mali. xabaar yi bitim réew. dem ci réew Burkina Faso wax ci benn arrestation boo xamante ni nag ak soldat bu réew Côte d'Ivoire moom la ñu jàpp rek ca frontière bu mu ànd nag beneen doomu adama boo xamante ni nag dañu yoroon ay ngandaay li la mën nañ wax ne lañ indi ay fitna ci diggante réew bu Côte d'Ivoire ak réew Burkina Faso mbir yi mel mu ngi am nag ginnaaw doxalin gu am solo bi nga xamante ni way kaaraange gi jot nañ ko def ca frontière bi diggante réew Burkina Faso ak réew bu Côte d'Ivoire waxtu bi ñu bi nga xamante ni teg ko loxo nag te doon ndawal réew bu ñaari yoon mbir mel na mu ngi am ci département bi di te yi nii nekk ci nord est bu réew bu Côte d'Ivoire mën nañ jàpp na ci diggam frontière ak réew Burkina Faso wante na teew ne nag autorité nga xam ñoo yor wàllum kaaraange nekk foofu ci réew bu Côte d'Ivoire ñu ngi def seen kémtulaay kattan ngir ñu mën indi benn accord jëmale ci jàpp bi nga xamante jàpp nañ ko seen benn doomu aadama boo xamante ni ab soldat la ñu a xool na ma mën a def ba indiwaat jàmm ci diggante bi bitim xibaar bitim réew ci réew bu Afrique du Sud ci jamono ji nga xam ne ngi waajali élection législative yi maanaam élection yi nga xamante ne war a tànn ndawal penc ci ndaw réew yi foofu ca réew bu Afrique du Sud ñu jot ne meeko ki nga xam moo fi njiitu réew ma di Jacob Zuma moom mi ne nag déposé woon li nga xam moo di candidature wante nag jot nañu rejeté li nga xamante ni moo di candidature bi ni mel ci élection législative yi nga xam ne bootu woon ci benn liste boo xamante ni bu yees la nekk foofu ci réew Afrique du Sud ñu mën a jàpp ne nag ab parti bu bees la boo xamante ni nag am na doole loolu wantewul ne dëpp candidature boobulee mujjul jàll ginnaaw liggéey bu am solo bi nga xamante ni commission électorale bi jot na ko def ci waajtaay élection législative yi nga xamante ni jàpp nañ ko fekk ñaari weer sant la gërëm la bu baax a baax soxna Mariama fii la ñam ci xibaar bitim réew yi yàlla mi boroom jàmm te ku mu jàmmal ngam jàmm yàlla may jàmm jaa ngeen jëf Bakamba jib na xabaaru tàggat yaram Serigne Moussa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay te nuyu mbokki auditeurs yi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak basketball tournoi de l'amitié bay am jamono ji ca réew Mali nag jëm ci U18 yi Sénégal démb dafa ñàkk ci kanam Guinée 67 65 ñu waxtaanee Ligue des champions africaine ñu ngi ci football tey Petro Luanda ma laale ak tout puissant Mazembe ASEC Babédjian di laale ak Espérance pour Tunis 32 finale coupe du Sénégal Ndiambour bu Louga dina la lekk Jeanne d'Arc Génération Foot di la lekk Sonacos Gazelle bu Bignona di la lekk US Gorée Olympique bu Ziguinchor di la lekk CNEPS Excellence ASUC di la lekk Jaraaf Stade Mbour di la lekk Gazelle bu Kédougou Demba Diop di la lekk AS Bambey modèle bu Mbao di la lekk AS Walidane ñu dem ci dënd ko Europe ak ñaar fukkeelu bëccëg bekk juróom-ñaar Ligue 1 France Metz moo la lekk Monaco Lyon di la lekk Reims bu juróom-ñetti waxtu jotee faneelu ak lu toon bu ñetti waxtu jotee Chelsea dinaa lekk Burnley Nottingham Forest Las Palmas ñaar fukkeelu bëccëg beeg juróom-ñaar Bundesliga Bayer Leverkusen dinaa lekk Hoffenheim Werder Bremen dinaa lekk Wolfsburg Bayern Munich dinaa lekk Borussia Dortmund mooy choc bi tey foofu ca Allemagne fanweeri bëccëg Calcio Italie Torino dinaa lekk Monza Genoa dinaa lekk Frosinone Lazio bu Rome dinaa lekk Juventus waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom ñaar fukkeelu bëccëg bekk juróom Saudi Pro bu juróom-ñaari waxtu jotee Al Shabab mooy laale ak Al Hilal Al Riyad di laale ak a Club Al Nasr di ak Al Tay mbokk yi waxtu jot nañu sob ak yéen ci seen rubrique tàggat yaram ak koor. seen rubrique tàggat yaram ak koor. képp koo xam ne digal nañ ko mu def activité physique na jéem au moins bu dogee ba pare mu def une activité minimum de 15 à 30 minutes activité physique nag xeebuñu dara marche bu rapide sax activité physique la bu mun na jógee ci marche mun na nekk vélo mun na def course à pied bu mu nekk loo xam ne intense na te supporté wu ko am na ñoo xam ni marche moom doyu leen comme sport comme activité physique am na ñoo xam ne il faut ñu daw yi am na ñoo xam ne il faut ñu football yi l'essentiel mooy nit ñi ñu am information bi may waaj wax une alimentation riche et équilibrée mooy tax nga am euh, wér yaram fekkee da nga dem def sport pour am gu yaram ñëw lekk loo xam ni c'est nocif maanaam loo xam ni activité physique yépp ñëw nga yàq ko ci quelques minutes loolu da nga ne loolu lu baax la médecin yi ñoo koy digle nga ñëwaat yàq ko nag ndax parce que da ngaa lekk lu neex loolu baaxul. li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen ah, bu ñu tàggatee yaram yi ba nopp dañuy dem nag bégali xol kooru gay ak baara tey Moroum Géej o Xaaj Ibrahim Gaye fukki fan ak juróom-ñeent ci koor gi DG fukki fanu yërmande yi dal dinay jeex fukki fanu njëggal yi tey jii lay jeex Xaaj Ibrahim su waru tey lambay ñaaw mu xam li lépp am lu ko métti moo de mbër kaamil la jullit xaqan la waaye koor motal ko mooy ca ku am gàllaaj takkal ko ku am ñaanit euh, sànni ko Xaaj Ibrahim nekkinam yërëmtalu na teyit euh, jëngwaat na bëgg woor ko koor gu mucc ayib gay moolum géej moo ca koor ga takkaat na biir ba tàmbali na njaxlaf ci liggéey ba tàngoor bi sonal ko DG jàpp fi mu jàpp rek ne foo mu ko kooruk tey ji concentré wu na lu mat bi midi di jot DG daal di jeexal takk teewut borom jom la Haj Ibrahim tée fu mu tee rek naka muy seetaan maquette bi ñu nar a defaree école arabe yëf yi taaru o DG xol bi kontaan ne bàyyi ñaari yi la fi bawoon ja l'école ba tax defaraatuk l'école bi mbégte jëmale ci képp ku bëgg lu baax DG xalaatam yépp lan lay participer ak fan la ko jaarale ci la gis numéro ya xam ne ci fond bi dina bàyyi la koy jaarale DG versement bu njëkk cinq cent mille la <laughs> li tëj la rek yéen ba dëkkagul <laughs> sama jàng ci arab soriwut waaye yàgg naa dégg nas ñang di répété lu bëri ne bàyyi nee na inna lazina xadamuun yi naalu muraadahum saadatun wa maalum xaw sax waaye defe naa mooy ñi may liggéeyal dinañ am seen <laughs> te liggéeyal l'école bi yëfu boppam anas bi tàmbali sëriñ bopp woolu ko Haj Ibrahim dëgg ay tànkam nekk bàyyi faalu liggéey bi naka mu yegg rek sëriñ jàmbalanteeg moom tombek nag mu doon waajal ndugu royal ngir ay ganonaar yu jóge bitim réew o DG tey jii sori na ci koor gi ne seen kër a jot Haj Ibrahim nañu jullee ba noppi rek xel mi sori bët yi di tukki balaa yem gis tax mu tàqalikook sagoom làmmiñ ba di meleste ko rek u DG Serigne dellusiwaat ko El Hadj Ibrahima El Hadj lan la yaa ngi xool rek DG dellusiwaat <laughs> aywa monsieur le maire c'est la ci programme rajo bi nekk su may réfléchir sama bët yi nu nee la jëm <laughs> gis nga maquette bi de liggéey bi nga liggéey ci école ba ñëpp kontaan Serigne daal di nekk ci rajo bi laan la li tax ma samp sama candidature yow yaa ma ko gëmloo man mii maay candidat doomu daara yi gëmloo ma ne bu ma yëkkatee sama loxo Sénégal yëpp ànd ak man rawatina ëttu kër diine ba ma joxoon la nga yore sama communication waaye ndeke rien bi timis di naa ne suñu ñëwee Touba Tivaouane Medina dama leen di foofu la gën a yéese bureau un Serigne zéro bu dee trois sëriñ zéro waaw man loolu laa fay liggéey xaaj Ibrahim kersa ganesi ko sëriñ di wax li ko naqari lépp waaye DG fatt nay nopp jàmm rek euh, moo ko fi andi mbirum fond ba moo ko taxoon jóg waaye ndogu la moo ne ci xel ma sëriñ di wax DG ne këcc monsieur le maire gën ci mer jógloo ko DG ah déet sëriñ <laughs> dañ may tere dox gannaaw tàkkusaan <laughs> xaaral ñu jël rek ma doog a yeewee ko Serigne Bopp caaxaanul tax mu woo garde corps yi ngir ñu jëlee ko ci force DG jaxasoo gan ya ca biir saal ba o Haaj Ibrahim comme xam na foow ñu génnee ko nee na cas ak palaatam toog ci suuf taabalam wàcce napp bi mu lëndëm crise DG <laughs> timi sa saay-saay kon fii la làqu allahumma la ko sumtu li ci yéene kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf li ci yéenekaay ñu ànd ci ak Seydina Omar Cissé lan bi comme conseil constitutionnel dëggal na ndam lu rëy li Bassirou Diomaye Faye xam ci wote njiitum réew mi le regard kaay moo ñu ko xamal turbine yéenekaay ne fa ñoo firndeel mooy ne fi mu toll nii Bassirou Diomaye Faye mooy juróomeelu président bu Sénégal talaata bii di ñëw nag ca la ñu koy takkal lenga ya te tamit ci lay wat ca centre Abdou bu jam ñaajo fukki président ak juróom ci àdduna bi fa ñoo fas yéene ñëw fekkee ko regard yéene kaay na njiiti réew bu France fa xoo téléphone Bassirou Diomaye Faye waxtaan ak moom enquête yéene kaay ne est-ce que foogu leen ne njiiti réew bu France Macron fa nar a ñëw fekkee si waatu Bassirou Diomaye fay bi ah biñ ko falee bindoon na bataaxal félicité ko ñu ne déete waaye mu xawaat ko téléphone neexal yaa ngi bëgg a bëri de le peuple yéene kaay ne askan wi nag stade Abdoulaye Wade fa bëgg Bassirou Diomaye Faye dafee fa waat ndax ñëpp koo fekkee Girassi nekk directeur campagne coalition Diomaye président na leen hé faa def ndànk président Bassirou Diomaye Faye wax na ma rek ñaar ba ñetti fan ci ginnaaw ne waat bi mu nar a def bëggul ñu amal ci ay xumbaay ak a yàq xaalis déedéet fa bëgg ñu def ko mu sedd guy bañ a am benn xumbeel te su sañoon sax biir conseil constitutionnel lañ koy defee giraasi na Bassirou moom ma wax nee na gis nga ñun keroog bi ñu amee ndam li wane neen suñ mbégte fi mu toll nii nag askan wi fa ñoo yónni te fa ñoo yàkkamti li ñu xaar si ñun moo ñu liggéey Aly Ngouille Ndiaye mel ni ko naan ko monsieur le président waaye leen alalu réew mi fa a def li wax leeral alalu dugal loolu nekk lu ñu négocier fa nga ko war a def ko waxee ca Le Fay yéene kaay Le Fay ne Bassirou Diomaye dund lay dund bokkut ak Bassirou Diomaye Faye ba ngeen xamoon de maintenant c'est le président de tous les Sénégalais Babacar Seye la ne Ousmane Sonko moo war a nekk premier ministre jiite bi ndax tey bu Diomaye Faye déggee président yàlla ak Ousmane la Sénégalais moom la ñuy topp doyloo ko moom mu doyloo Diomaye na wotel leen ko nit ñi wotel ko kon changement bi yëpp yàlla ak moom la lu ji njàgg mooy attekat yi ci Sénégal mel ni ku ko ñun daal li ñuy oo Ousmane Sonko mooy mu bañ a nekk takkandeeru Diomaye Diomaye Faye wala mu koy gàllankoor sénégalais yi Diomaye Faye moom lañ fal président ànd campagne nag ak jiite réew du benn ña ngi ko waxee ca vox populi nijaayu Diomaye Faye mais ni kuy tontu mbootaayu magistrat na leen hëy gis ngeen Sonko ak Diomaye xam nañ li ñu def de te li daloon Blaise Compaoré ak Thomas Sankara ca Burkina Faso ay xarit jël réew ma jiite ko Thomas Sankara di jubal teg réew ma ca yoon Compaoré mujj jàmb ko wor ko ba la ko faat nee nañ loxom génnut ca doxalin boobu nee na loolu du mës am ci diggante Diomaye ak Sonko nit ñi nag jéego yi njëkk a teg ginnaaw buñ faloo ci la ñu xam xàpp buñ leen di muñal fan lay xam ba ne jomaay ma ngay nettali jomaay wal Fadjri a kaay ne ak lu mënti xew daal ay nit ñu bees tàq ñoo yor fi mu toll ni nguur gi l'observateur ne waaye man tamit fay laajte Ousmane Sonko lim leble woon su ko opposition bii tey fayee ci nekk ay opposant yoo xam ne yu radical lañ comme ni ko Pastef doon defee njiitaram Macky Sall est-ce que su boobaa duñu am crise institutionnelle Abbas Fall coordinateur Pastef bu Ndakaaru mais kuy tontu l'observateur na ko ñu liggéey de ndax Ndakaaru gi ñu votel ci askan wi 288 000 voix te maire bu Ndakaaru Barthélemy Dias bi doon moom mooy borom Dakar te su élection jotee dana ko wane moom ak candidat bi Khalifa Sall xaw tut ñu rey leen Dakar fañ leen a mbuqi bañ tëdd ndax ñoom 24000 voix rek lañ am liñ leen ëppale oto fa ko mën a daw xam nga loolu muy firi waa Dakar yi fa ñoo wan Barthélemy Dias na ko gis nga wor baaxut falu ba pare jàmbu di ñaawi kàddu xamul benn njëriñ ku ko fi def rek askan wi wala ginnaaw enquête yéen a kaay mel ni ku naan ko ndeysaan Khalifa ñoom Barthélemy Dias faa leen nii fa ñoo dee wet ci wàllu politique jeexal nañ ndax duur yi fa ñaaw yow ko Barthélemy mbiru Ndiaga Diouf yi nga xam ne atte woon nañ ko ba mu pare est ëllëg moom bokkam ci ay wote dana yombati ba tax yéen kaay léegi Khalifa Sall moom kan moo ko war a remplacer ba tax ñu mën a defaraat seen parti ba préparé wote yi di ñëw l'observateur na ko faala ci yokkal PS ñoom itamit màgget ya jiite woon seen parti ba ndaw ña fa ñëw fippu fi mu nii ñu puus màgget ya ñoom Aminata Mbengue Ndiaye ak Serigne Mbaye Thiam ak ñu dem à yaa ma neex yéen a kaay bi ne liste gouvernement bi sax faa ragal na balaa jomaay faye waat sax fekk na ñoom defar nañ ko ba pare leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne njiitëram Macky Sall faxandi ay coppite ci àttekat yi ci Sénégal maanaam fa xamal ay nomination ñu mu fal ca conseil supérieur de la bi ñu doon xamal kurpeñ bi mujj moom la mujj dóor gaañi si du quotidien moo ñu ko xamal enquête yéen kaay na ko bokk na ca Abdoulaye def yow dem ba nga xam ne ay ñeenti fan moo la dese sa nguur ngay fal ay attekat di wàcceeg di yokk loolu lan lay niru libération ne laal na yëfee de magistrature bi ay fale yoo xam ne la fa def yoo xam ne fa bett ñu bëri cour suprême ak pôle judiciaire financier tamit amal na fa ak coppite source ay yéen a kaay na Abdoulaye Ndiaye léegi fa ko fal mu remplacer Ali Siré Ba kooku nag fa dem à waaye bi gën a bett ñu bëri moo njiitara Macky Sall fa fal Fou Malade mooy rapport boobu conseil économique da la ko dugal xanaa jommi ngeen le 18 mars lañ a kaay a gudde taala ma ngay toj RTS de gars yi daal fa ñoo wax ne fay amal ay recrutement ñoo xam ne CDD lañ amoon mu defal leen CDI contrat indéterminé yokk salaire yokk goo xam ne dafa jéggi dayo ku doon am deux cent cinquante mille ñu yokkal la ba huit cent nangam mille loolu foo ngeen ne jàmm la ba tax lii dafa ñaaw tooxi doona bu mag la ak sabotage ndax xam nga ne yow ngay dem dootoo jiitati RTS sa nguur jeex na rek ngay saboté lu baaxut leer la neen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne xeex fa amoon ca pale ba Ousmane Yara ak Oumar Sow ministre conseil l'observateur moo ñu ko nettali Ousmane Yara fa wax ne Umar Saw fa ko këttal saaga rek mu dóor ko kurpañ bokk sa ko tuy rek Umar Saw wàcc daanu na xëlës turbine yéen e kaay ne moom Umar Saw moom sax fañ ko xoolu woon ca takk der ya déglu ko waaye fañ ko mujj bàyyi mu dem le réveil yéen e ne Umar Saw kay teg loxo gi ñu ko tegoon loxo wax na ci fukki wax ak juróom-ñaar yu wuute gp yéen e moom fa ñoo xamal ne gerte manqué na Kaolack de 2000 tonnes ya fa gaayee dajale doyut de info yéen e kaay nga xam ne fa faatu ci loxo takk der yi muy Seydina Mohamed Diop njabootam fa ñoo taqal takk der yi lu ji njaaga ñooy njaag ña ngay nettali nañ leen tegee loxo ca néeg baag grenade lacrymogène yaag jàpp génne yóbbu ca xàll ba torture leen méttital toroxal ginnaaw gi xenu yóbbu hôpital yóbbu beneen hôpital bala caa ma xam ca te loolu baaxut leneen lu baaxut lefe yéen kaay moo ñu ko xamal mooy benn étudiante daal apprenti chauffeur moo ko violé tëddee ko siif yëf yaa nga amee ca diwaanu Louga la am ca diwaanu Kolda nag fa métti lool ñaaw te daw yaram yaaw seetal fa xam benn xale bu xam benn xat ak keneen ku xam ñeenti xat fañ leen fekk ñu faatu ndeysaan ñàkk seen bakkan ci biir benn oto l'observateur moo ñu ko xamal turbine yéen kaay yaa nga amee ca quartier Ndiobène yëfi nag li tax mu gën a métti moo ñaari xale yëpp ay mbokk lañu waa ma ne man faay laajte ñoom fañ leen a tëj ci oto bi xamuñ ngelaw luñ nokk ñu faatu wala boog fañ leen a rey dugal leen ci oto ba ak lu mu ci mënti doon métti na trop ndeysaan euh, mbokk yi li ñoo fi ruuse woon ci ay xibaar Alfayda FM 90 point 1 di juróom-ñeent fukk yu toftal benn xibaar yi ma feggo woon ci ak koddu sekk keneme ci machine bi ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ñi doon teewlu xibaar yi kàddu gi doon bàyyeekoo ci loo fii ci immeuble imam Assane Cissé ci Medina Baye ñu ñaan rekk yàlla mi boroom jàmm ku mu may jàmm nga am jàmm yàlla ñu yàlla may jàmm fu ñu toog di dégg jàmm di gis jàmm mbokk yi cant ak ngërëm ñeen leen ah, di leen jox digg daje ci yeneen i xibaar di leen wax ne woy leen di ànd ak programme yu am solo yu Alfayda FM jërë ngeen jëf.